وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه والتكفيه عن نكدي mbokk yi seetaan MKTV di télévision bu mag bi nga xam ne moo nekk fii ci jumaay Touba ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di jiital ci nuyoo boobu ak ziyaar bi saaxibul fadilati al cheikh Mouhamadinil taxa xafizahullahu euh, wa raahu di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér moo ba mu àggale naa yi nga xam ne moom la yéene ci yoon wi euh, te ànd ko ak mbooleem njabootuk Serigne Touba gi ak taalibe yépp dellusiwaat nañu ak euh, seen jataay bi ñu tuddee ndaje muy liqaat ndaje nag doon jataay boo xam ne dañ ciy dalal ay boroomi xam-xam ay gëstukat ñoo xam ne seen xam-xam ak seen gëstu ak seeni yëngutu bokk na ci li jëriñ euh, jullit ñi rawatina taalibe yi nga xamante ni ñoo dëkkee ci dëkk bu sell bii di Touba. ay bindkat jaar nañ fi euh, ay waxtaankat ay gëstukat jaar nañ fi waaye itam ñi nga xam ne dañoo yor ay yëngu ci biir dëkk bi yëngu yoo xam ne jaadu na askan wi xam ko xam itam doxalin wa euh, ñooñu itam jaar nañ fi. suñu liqaawu tey bii nag suñu ndajem tey bii nag bokk ci ndaje yooyu nga xamante ni euh, dañ koo jagleel ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci dëkk bi ci fànn goo xam ne dafa am relation ak population bi euh, looloo waral tey ñu dalal fii koo xam ne buñ ko tuddee ñëpp danañ xam ne euh, tomb bi ñuy bëgg a waxtaane ku ci placé pour wax ci la muy Serigne Bamba Fall mi ci sama càmmoñ moom lañ fa yéene dalal ci suñu ndaje tey bi Serigne Bamba Fall nag euh, kenn la ci commune Touba ancien secrétaire général la bu commune Touba waaye itam ancien sous-préfet la waaye itam adjoint au maire la ci commune Touba mosquée chargé de l'état civil euh, kooku lañ fas yéene siq ak waxtaan wi mbirum état civil moomu nag sax moo ñu tax a jóg moom lañ bëgg waxtaane ndax xam nga ne doomu aadama bi ci gane àddinaam ba ba muy wuy ji boroomam lépp état civil daf ko tënk. Hmm. mooy lu jëm ci wàllu kayit. bu ganee àddina dana soxla li ñuy wax déclaration de naissance maanaam kayit wuy firndeel ne kii kat gane na àddina ci barab sàngam euh, diw ak diw ñooy ay waajuram kayit woowu ko yaxal état civil moom moo koy saytu waaye itam bu demee ba war a samp kër loolu ñuy wax takk soxna itam am na weneen kayit wu muy soxla woo xam ne digganteeg diggante waay dencante yi ñoom ñoo koy am ñu koy wax certificat de mariage loolu itam di kayit wuy wane ne diw mii ak diwkat euh, bis ni ki tey ñoom ñaar ay way dencante lañ naka noonu bu demee ba génn àddina itam soxla na euh, kayit wuy wuy may sañ-sañ ci ñu ñu denc ko wane ne kii kat faatu na gannaaw bi ko médecin yaxalee ne kii kat génn àddina ci anam yii ak anam yii waaye fi ñu koy denc loola euh, commune ba war naa am kayit wuy wane ne kii kat warees na ko mën a denc euh, génn àddina warees na ko mën a denc muy euh, certificat d'inhumation kon nga xam ne dunduk doomu aadama gi lépp état civil moo ko tënk dëkk bi di Touba nag di dëkk boo xam ne yaakaar naa léegi kenn nattableetu ko dañ daan wax deuxième ville du Sénégal waaye léegi dootuñu ko wax sax ndax ci recensement yu mujj yi nga xam ne ANSD def na ko gis nañ ne département de Mbacké mooy département bi nga xam ne mooy le plus peuplé ci Sénégal mooy bi ci ëpp population département boo xam ne li mu ëmb ëpp na un million cinq cent mille ci ay euh, doomu aadama kon loolu département bu mag la mm-hmm. bu ñuy wax nag département de Mbacké mooy département bi ëpp population ci Sénégal loolu bu ñu koy wax Touba tax Touba mi mu boot moo tax euh, Touba moomu nag mu boot euh, am commune boo xamante ni moom lañ dénk lépp lu aju ci wàllu état civil bi commune Touba Mosquée moom lañ ko dénk commune Touba Mosquée boobu bu ñu xoolee moom itam li mu boot noonu la diisee ndax lu mat téeméeri village yoo xamante ni polarisé na ko mu ngi bootu ci ginnaaw commune Touba Mosquée euh, di ay village yoo xam ne am na ci yooyu sax digganteem ak commune bi yaakaar naa bu matul ñaar fukki kilomètres it li ko koy manqué du bari population boobu nag benn centre secondaire bu état civil képp bu Touba Mosquée yoroon leen taxoon nag mu jur ay jafe-jafe yu mag a mag a mag jural na jafe-jafe waa commune bi ci seen bopp ndax liggéey bi bari woon na bari goo xam ne attanatuñ ko mënuñu saxa euh, li ñu am ci par ci ay déclaration de naissance wala sax ay euh, euh, transcription mënuñ koo matal ba yëf ya dafay dajaloo ba indi jafe-jafe ci seen biir hmm. waaye itam indil na jafe-jafe population bi ndax itam Euh, kayit nit day toll foo xam ne daf koy soxla ci ay ci ay yëngutoom moo xam kii jàng la moo xam kii def concours la moo xam ki bëgg a tukki la moo xam moo xam ba tax na kooku itam euh, tardement yooyu di am dana ko jural jafe-jafe nga xam ne kon jafe-jafe bi ñun ñëpp ko yëgandoo loolu nag tax na euh, commune Touba Mosquée am benn xalaat ak initiative boo xam ne bëgg na ko amal ngir wàññi jafe-jafe yooyu ne sax xëy na du jeex waaye wàññi ko ba mu gën a woyof hmm. ba yëf fi gën a woyof ci ñaari boor yëpp loolu moo sabab tey sëriñ Bamba Fall mi ñëw bokk ak ñun jataay bi ngir ñu fas yéene waxtaane loolu kon duñ def lu dul jébbal ko kàddu gi sëriñ Bamba mu nuyoo bu ko defee ñu doog dugg ci biir waxtaan yi sëriñ Bamba ñu ngi lay nuyu salaam wa rahmatullah euh, aouzu billahi min asheytan irajim bismillahi rahmani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim waaw sëriñ Ablaye ñu ngi lay gërëm ci dalal bi ñu dalal ci seen barab bu tedd bi ñu ngi tàmbali suñuy kàddu di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu yàgg fi lool te ba naal yi mu naal yépp mu àggale ko ci jàmm ak teewaayu bakkan euh, ginnaaw loolu ni ma ko waxee rek ñu ngi lay gërëm ndax fii ay boroomi xam-xam kese ñoo fi teew alors euh, kon bu ñu yàlla dogalee ngeen nangu ñoo dalal dañuy ñaan yàlla mu defal ñu tawféex ba lépp lu ñu fi wax nit ñi mën koo dégg te mu amal leen njariñ jërëjëf Serigne Bamba ci kàddu yu am solo yi ak nuyoo ni ma ko waxee léegi dégg nga sababu jotaay bi ni ma ko hmm, présenté hmm, hmm. ci ne jafe-jafe moo am. Mm-hmm. ba tax ñu bëgg amal jataay bi. Mm-hmm. Mm-hmm. muy jafe-jafe wu këyit. ci commune Touba. xëy na loolu jafe-jafe la sax ci Sénégal gépp waaye fii da cee rawati. ndax ni fii bindoo moo ni waral. Euh, bala maa ñëw ci loolu sax. Euh, dañuy njëkkee rek. ci état civil. li ñuy wax état civil. lan mooy njariñam dëgg dëgg dëgg dëgg. ak ban importance la am ci dundu askan bi. ah état civil de buñ ko buñ ko mënee wax mooy. maanaam ay béréb la yoo xam ni yii euh, nguur gi ci boppam moo ko sàkk ci commune yëpp commune Sénégal yëpp bu ci nekk dafay am lu ñuy wax centre d'état civil centre d'état civil boobu nag mooy kër gi nga xam ni moom la fa gouvernement bi teg maanaam ñuy enregistré maanaam di jël ay karne yu mag di ci bind ñi gane àdduna di ci bind sëy yi di ci bind ñi génn àddina loolu ci gàttal mooy état civil. dëgg la. Hmm. Euh, di bind ñi gane àddina. Hmm. ak sëy ak ñi génn àddina. Hmm. waaye gis nañ ne. état civilu Touba. dafa am ay jafe-jafe. parce itam bu ñu bëggee saafara feebar bi. faaw ñu tudd. jàngoro ji lan la. jafe-jafe bi mooy. ni ko waxee léegi Touba day dëkk bu mag. boo xam ne li mu polariser ci ay village kenn xamul lu mu population bi fi nekk itam kenn hmm. xamul nu ñu toll. Hmm. ba tax na jafe-jafe këyit wàllu këyit hmm. am. rawatina ci li ñuy waxtaane muy lu jëm ci wàllu. Euh, euh, këyitu judd yi. muy moo xam bulletin déclaration de naissance yi la moo xam ñi nga xam ne ay audience foraine yuy am la ay jugement la ñu war leen transcrire te loolu itam euh, commune moo koy def état civil bi moo koy def loolu jafe-jafe boobu nga xam ne moom la population bi am ngeen dundu ci lan moo ko sababoon waaw li ko sababoon mooy Touba day dëkk bu rëy maanaam li wax agglomération loolu la maanaam dëkk bu rëy boo xam ne bii euh, lu mat téeméer ak lu topp ay dëkk ñu ngi fi yoo xam ni dañoo bootu ci tuubaa te dëkk yooyu ci bari ay dëkk yu mag la yoo xam ne yenn saa yi sax dañuy ëpp li ñuy wax capital régional soo jëlee par exemple dëkk bu mel ni Daaru Xuddoos wala dëkk bu mel ni Touba Mosquée wala hmm, beneen dëkk Daaru Minam boo xoolee seen population ëpp na population yenn commune chef lieu de région yi rax ci dolli euh, dëkk bi dafa yaatu ndax comme ni nga ko waxee sànq am na dëkk yoo xam ne boo fa nekkee pour nga ñëw ci ci mairie bi di nga dox lu mat ñaar fukki kilomètre ak juróom fu mel ni Touba Bel nga xam ne ci Touba la bokk boo fa jógee bëgg a wut si këyit di nga dox lu mat ñaar fukki kilomètre ak juróom bu dee Touba booba noonu hmm? alors te loolu lépp dañuy xëy di ñëw di wut si këyit ci mairie bi soo seetee fu mel ni dakaar dakaar am na fa lu mat fukki centre ak juróom-ñeent defe naa état civil ci mel noonu ci ci Dakar hmm? kon jaadu na. Touba am li ñuy wax ay centre secondaire d' civil maanaam ay état civil la yoo xam ni dañ koy jëlee ci état civil bu mag bi indi ko ci gox-goxaan yi mm-hmm. alors loolu daal lañ yaakaar ni buñ ko defee dina wàññi bu baax euh, jafe-jafe yi nga xam ni moom la nit ñi doon rencontré ci bu ñuy ñëw ci mairie bu mag bi nga xam ne daal ay forme état civil ay centre avancé lay doon. ay centre avancé lay doon ay centre la yoo xam ni. Mm-hmm. Eh, tegat ay centre autonome lay doon yoo xam ni daanaka. Mm-hmm. li centre beey def yëpp dañ koy mën a def dañuy mën a jël naissance dañuy mën a jël décès dañuy mën a jël mariage. lépp loo xam ne lii da nga doon jóge par exemple Daaru Xuddoos ah di ko defi ca centre ba nekk Daaru Manaan mën ngaa toog Daaru Xuddoos nga defee ko fi. yaakaar naa ni loolu bu mel ne buñ ko defee dina tax nit ñi. gën a mën a dem ci état civil bi parce que nag Touba bari na fi ñoo xam ne ñii dañoo am problème kayitu juddu te kayitu juddu moom loo ko gën a teel a am rek mu gën a baax ci yow ndax moom moo lay topp sa giirub dund man ngaa yaakaar ni sax man xëy na euh, bariwuma lu may dugg dugg ak administration bi moo tax du ma wut kayitu judd waaye da ngay dem ba ba nekk mag yenn saa yi nga soxla ko yenn saa yi gis koo xam ne kii day dem ba ay doomam bëgg dugg école ñu laaj ko ne ko ndax am nga kayitu judd mu ne man aw ma aw ma kayitu bëggoon naa ñu taxaw fi tuuti waaw entre euh, déclaration de naissance bi nga xam ne euh, bu normal la nit ki dafa gane àddina ñu déclaré ko ak li nga xam ne moom la ñuy wax jugement mm-hmm. nit ki dafa xëy na jàppoon na ne moom du ko mm-hmm. soxla mm-hmm. dem ba soxla ko mu jural ko ay jafe-jafe yu ñaar yooyu ba ah, yan avantage moo ci am ak ay yan inconvénient moo ci am parce que diggante boobu problème la de ki am déclaration de naissance bu normal xëy na du yem ak ki nga xam ne dafa am jugement waaw euh, différence bi rek mooy maanaam bu ñu ko defaragul mais buñ ko defaree ba pare mu amul benn différence kayitu judd la kayitu judd la euh, ki nga xam ne nag dafa juddu Euh, ba mu am at diggante boobu mën nañ ko fee déclaré te bu ñu ko fi déclaré du fay dara mm-hmm. loolu moom dafa leeru sax ci bopp nit ñi mm-hmm. ki juddu ba ba muy am at boo ko déclaré doo ci fay dara man mm-hmm. ngaa dikk déclaré ko doo joxe dara ñu jox la li ñuy wax volet un benn këyit la bu ñuy dagg ci récépissé jox la ko loolu moom bu fekkee foofu nga bëgg a yem bu fekkee nag da bëgg nag ñu defal ci extrait su boobaa da ngay fay ah, hmm? jugement nag moom bu xale bi juddoo ba am lu lu lu ëpp uh, at maire yi amul droit jël ko ci ay registre hmm. lu dul def cee am ndigalu tribunal ndax délai ba dafa weesu loolu laa bëggoon ñu leeral ko nag loolu la loolu la uh-huh. bu weesoo at daal moom hmm. maire yi amul droit jël ko lu dul dafa am këyit boo xam ne jugement lañ koy tuddee te jugement boobu mooy ndigal loo xam ne day jóge ci tribunal président tribunal bi ni maire bi ah kii kat juddu na at sangam waaye amul woon këyit léegi jox naa leen ndigal pour nga jël ko ci say kayit ci say registre loolu mooy différence waaye bu loolu xasee am nag moom jeex na ki ñu déclaré déclaration normal boo xam ne bii ci at lañ ko déclaré ak ki nga xam ni dafa am jugement ñaari këyit yooyu ñoo am benn valeur waaw sëñ Bamba foofu ñu taxaw foofu tuuti mhm. ndax am na itam benn problème boo xam ne nit ñi mhm. ñu ngi koy faral di am te càggante moo ko waral mhm. wala ñàkk a xam xëy na mooy kii juddu na ci hôpital masalan hôpitalu euh, centre de santé Serigne Saliou bi nekk vingt huit la juddoo mu ñëw sage-femme bi defal ko kay bu wone ne certificat d'accouchement wone ne diw mi kat am na gone euh, gone bu góor wala bu jigéen ci waxtu sàngam moom kayit woowu. ak mhm. ñàkk xamam. tax na mu mhm. jàpp ne mooy mhm. bulletin de naissance bi. mu denc ko. ba mu romb at wala ba mu kii. ku mel ne sëñ Bamba jaar fa ne ko mm. yow lu tax yóbbuwoo sa kayit bi mm-hmm, mm-hmm. Euh, déclaré ko ñu la ko nangam mm-hmm. mu mu ne xaw ma woon la bu àggee fekk romb na at fekk validité bi jeex waaw loolu itam jafe-jafe la non jafe-jafe boobaa day daal di dem ñuy wax jugement jugement lay dem moom bu weesoo at jar na leeral bu baax a baax waaw waaw kayit bi ñu lay joxee ci ci dispensaire bi day wane ni sage-femme bi da ciy bind ni man sage-femme tudd nangam nekk ci hôpital sangam Euh, man ma mm, taxaw mhm. mm, ku mm, diw sangam mhm. ba mu am doom bu góor wala am doom bu jigéen mhm. kayit boobu nag du këyitu judd ah, ñu bari nag dañ jàpp ni buñ ko amee am nañ këyitu judd euh, waaye kayit boobu moom nga war jël ci diiru at nga war ko indi mairie bu xasee romb at nag moom mairie amatul droit jël ko lu dul ci ndigalu président tribunal hmm? loolu la dëgg la waaw kay ñu del ci centre mmh. euh, centre secondaire yi nga xam ne centre ay centre avancé la mmh. muy initiative mmh. bu am solo euh, boo xam ne ñun dañ koy saluer ndax dana soulager bu baax jafe-jafe yi nga xam ne population bi doon nañ ko dund euh, centre yooyu yan centre la yan la nombre bi nu mu toll ak centre bu ci nekk yan village ñoo aju ci moom ndax itam ndax man man na maa dëkk Kër dem ci centre Alia wala ma dëkk Alia dem bu Kéré Mbay wala bu bu Ndindi loolu itam bëggoon naa ñu leeral ko. maa ngi dégg waaw question bi nga bi nga laaj lu am solo la. Euh, centre yi euh, ñëpp xam nañ ni lu ñu lu yàgg lu ñu yàgg mébét la. Mm-hmm. Hmm, ay at a ngi nii ñuy wax naan centre yi dina dina dina ubbiku waaye nag centre yi moom euh, li ñu mën mooy ñu conseil municipal waxtaan ci ba juboo ci. jël li ñuy wax délibération ñu yóbbul ko ministre bi nga xam ni moom mooy toppatoo affaire collectivité locale hmm. kooku moom moo mën a jël arrêté arrêté lay jël pour wax ni béréb sangam def naa fa centre secondaire béréb sangam def naa fa centre secondaire hmm. alors. Euh, loolu moom moo waral yéexaay moo waral yéexaay parce que lii bu jàpp ne rek. Mhm. maire bi ci boppam day mhm. jékki-jékki rek. daje daal di def nangam. Mhm. mais dafa am procédure bu muy jaar ba ba mën a nekk. voilà waaw procédure bi noonu la. dañuy conseil municipal dafay dajaloo jël lu ñuy wax délibération. maire bi signé ko ñu yóbbu ko sous préfet également mu signé ko. ñu yóbbu ko dakaar boole ko ab ak ak ab rapport. buy wax ni kat ah Touba kat soxla na centre secondaire ndax lii moo tax lii moo tax lii moo tax su ko defee ministre bi tam moom xool ko. alors bu jaadoo mu def mu mu mu jël benn arrêté wax ni euh, wut créé naa ay centre secondaire béréb sangam béréb sangam sangam donc lii euh, du du doon loo xam ne lii ci conseil municipal bu bees bii lañ ko def bi ñu élire en deux mille vingt deux conseil municipal bu jiitu moom moo ko defoon. procédure procédure foofu moom procédure moo yàgg rek. Mm-hmm. Euh, conseil municipal bi nga xam ni moo moo jiitu bi ci lañ ko ci lañ jëloon délibération bi. yóbbu ko ndakaaru dañ ko yóbboo ndakaaru xaw na fa yàgg tuuti demoon na ba am ay jafe-jafe sax nun bi ñu ñëwee ci conseil municipal bees bi ñu yeesal ñu yeesalaat ko yeesalaat dossier bi parce que dossier bi demoon na ba ndakaaru kenn xamul woon euh, fu mu féete ñu ñu ñu yeesalaat dossier bi alors euh, ministre bi jël arrêté daal di euh, wut juróomi centre secondaire juróomi centre secondaire yi mooy euh, Daaru Xuddoos euh, Ndindi Abdou mm, Touba Sam Touba Mosquée mu Mubarak juróomi centre yi moo amagum centre bu ci nekk nag dafa am ay dëkk yoo xam ni ci centre boobu ngay dépendre buñ jëlee centre bu mel ni Daaru Xuddoos par exemple Daaru Xuddoos ci foofu lay dépendre Madiana fa lay dépendre Tindodi fa lay dépendre Euh, Guédé buso ci sant boobu lay aju Bagdad ci sant boobu lay aju Aliya noonu lañ ko toppee mm-hmm. boo demee euh, fu mel ni Ndindi Abdou mm-hmm. Ndindi Abdou moo fa nekk Kéré Mbay Touba Bogo sant bu nekk daal dëkk yi la gën a jege. centre découpage lañ ko def découpage lañ mm-hmm. ko def boo xam ne dañuy fexe ba fu nekk centre bu la gën a jege dëkk ya fa nekk di ñëw foofu alors léegi nag euh, li nga wax am na solo Euh, maanaam centre bu nekk day am li wax compétence territoriale mm-hmm. maanaam euh, centre Daaru Xudus dëkk yi nga xam ni dañ ko wax ni dëkk yi ñoo bokk ci centre ñu dong ngay am droit jël leen maanaam koo xam ni kii mm-hmm. dafa juddoo ci hôpitalu bu bees bi mm-hmm. Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim foofu da kooku centre Daaru Xudus la bokk mais koo xam ni kii dangaa gane àdduna ci centre de santé bi nekk euh, Touba Mosquée. Mhm. boo ñëwee Daaru Khoudoss day naa déet non yow demal demal demal demal demal demal demal fane kon ki nga xam ne. Hmm. hôpital Cheikhul Khadim la gane àddina. wala hôpital Jéemul wala wala wala Madiana wala Madiana. waaw mhm. ñooñu mën nañ dem. def hmm. ci centre. ci centre bu Daaru Khoudoss waaw. Hmm. bon boo demee mu Moubarak également noonu. mu Moubarak. boqatul mubarak euh, boqatul mubarak euh, yi ñoo fa nekk euh, boqatul mubarak daaru tanzil jànnatul mahwa Touba Fall jànnatu mooy Baye Fall ga ak daaru ka noonu daal lañ ko toppee maanaam dañu fexe ba fu nekk daal fa la gën a jege nga yem foofu hmm. waaw léegi ndax centre yooyu hmm. danañ wut ay officier d' état civil. leen fa. wala dañ hmm. nu centre bu ci nekk comme ni ma la centre bi daanaka lépp loo xam ne lii centre bu mag ba da koy def rek centre bii dina ko mën a def. macha allah mooy euh, këyitu juddu yi. mooy sëy yi. mooy euh, maanaam ñi gën àdduna dese yi. Hmm? nga xam ne ku soxlaati yii moom jarul ngay dem jarul ngay dem ca centre bu mag ba centre bi la gën a jege foofu te boot la te boot la waaw voilà noonu la te boot la foofu nga foofu ngay foof foofu ngay foofu ngay yem foofu nga yem foofu ngay yem mhm. waaw noonu la. nga xam ne daal. Mhm. lu jiitu lii. Mhm. Euh, euh, ñaata officier de état civil. moo ah, nekkoon ci waaw waaw léegi. Euh, bu ci nekk tam. dafay am officier d' état civil. Mhm. ñu affecté fa ay agent ñaar mbaa ñett dañuy tàmbalee. pour ñu jàppale ko ci liggéey bi. nga xam ne centre bu ci nekk tam da ngay am sa autonomie. sa autonomie foofu lañ koy defaree boo dikkee agent yi ñoo lay jël laaj la nga wax ñu jël ko bu ñu paree jox officier bi mu signé la nga dem. donc centre bu ci nekk daanaka day am autonomie centre bu mag ba nag officier d'état civil boobu nag moom mooy am pouvoir euh, di contrôler maanaam li xew ci centre yu ndaw yi mm-hmm. parce que ci moom la ñu ci moom la ñu aju ci moom la ñu aju waaw muy initiative bu am solo comme ni ma ko waxee itam loo xam ne dana soulager bu baax a baax jafe-jafe yi population bi doon dund ci wàllu wutum këyit njàmbat li bari na daanaka saa yoo demoo demee commune bi gis coow li te coow li coow li kat dañ ko partagé commune bi noonu ci askan wi amee problème noonu la ci commune bi amee problème ndekete dafa amul woon sañ-sañu man koo régler ci façon bii ci lu dul euh, euh, voie autorisée wala boog autorisation étatique kon muy lu am lu ama am am solo euh, at yi doon xalaat ne mhm. lu mel ne hôpitaux yi parce que mhm. dama ko gis Dakar mhm. lu mel ne hôpitaux yi mënoon xam ne au moins déclaration de naissance yi moom dana ko mën a jël en compte mën a wàññi fële te du tax sax mu jeex mais bii sax nag dafa mel ne moo gën a moo moo gën a moo gën a euh, moo gën a yaatu tey euh, xëy na war nañ ko mën a gën a yaatal parce que mel na ne euh, dëgg la cinq yi kii na mais ab tàmbali la danañ danañ danañ gën a dox danañ ngay gën a dox jëm ci waaw euh, sëñ Bamba gis nga jafe-jafe yi nga xam ne élèves yi am nañ ko ci am nañ da ngay gis élève boo xam dafa war a def examen kii war a def concours donc dem déposer pour mu am extrait euh, carnet bi réer na wala gisuñu sa tur wala turam keneen da caa nekk wala numéro bi keneen da ko moom ah, mu indi ay coow yu baree baree bare yooyu itam mbaa danañ jëlaale euh, en compte réglé ko ci fii fii ci fii ci jafe-jafe boobu. waaw pour pour yooyu am na benn projet bu mag euh, bu ñuy wax euh, projet modernisation informatisation hmm. état civil. projet boobu moom projet boo xam ni bii projet national euh, service bi ñuy wax agence nationale de l' état civil hmm. moom mooy boot projet boobu. projet boobu dafay war a informatiser si service état civil yi nekk ci Sénégal gépp hmm. bu ñu paree dañuy lëkkale. centre yëpp ba nga xam ne yow da ngay mën a toog fii ah nekk Touba fekk nga juddoo Ziguinchor wala nga juddoo Kaolack nga ñëw fii ñu joxal defal la sa kayitu juddu boo xam ne bii ba nekk ba nekk Kaolack moom lañ lay moom lañ lay defal. Ah lool am na solo trop liggéey boobu nag sori nañ ci trop. Mm-hmm. ndax euh, agence nationale agence agence nationale de l'état civil ANEC. Mm-hmm. yónnee na fi déjà ay nit ñu ñëw. maanaam tàmbali li ñuy def numérisation. numérisation nag mooy dañuy ñëw photo extrait yi fi nekk yëpp hmm. bu ci nekk pour bañ mu réer dañ koy ñëw jël ko benn par benn hmm. photo ko ba nga xam ni li ci nekk lépp day feeñ bu ñu demee ba ci kanam dañ koy indexé indexation lañ ko tuddee loolu alors euh, dafay tax bu ëllëgee ñu mën ko informatiser informatisation boobu tam sori nañ ci trop Euh, Touba ci commune yi nga xam ni maanaam commune pilote yi nga xam ni euh, ci commune yi ko war a jëkk appliqué ci Sénégal Touba ci la bokk tàmbali nañ liggéey boobu liggéey bi sori na trop yaakaar nañ ni daal ci année 2024 bii yaakaar nañ ni état civilu Sénégal yëpp dañ leen interconnecté maanaam ñu taqale leen ñoom ñëpp. macha allah ba nga xam ni vraiment mm-hmm. problème d' état civil moom. Mm-hmm. yaakaar naa ni bu projet boobu jàllee moom nit dootu ko gaaw amati seen. nga xam ne nit ki numéro acte de naissance am sax mën na ko mokkal rek. mën na ko mokkal rek ak année ba. ak année ba waaw dikk ni man maa ngi juddoo Richard Toll sama acte numéro 1145 la année 88. 88 ñu tàppe ko génne. gis ko tiireel ko signal ko jox ko mu dem. macha allah projet boobu nag projet national projet état la. Mhm. agence nationale de d'état civil moo koy sori na ci trop trop trop mhm. trop. parce que mhm. bërki démb rek maa ngi dégg directeur bi di wax ni. numériser nañu maanaam photo nañ lu met lu lu tolloog defe naa huit million d'actes maanaam état civil Sénégal yëpp jaar nañ fa fii jaar nañ fii ba dul benn du ñaar liggéey boobu moom Touba sori na ci trop parce que dañoo tànn Touba mu bokk ci commune commune pilote yi nga xam ni fa lañ ko jëkk def mm-hmm. dëgg la loolu kon loolu liggéey bu am solo la boo xam ne bu accès mm-hmm. mm-hmm. yaakaar naa dana tax jafe-jafe yu bëree bëri mm-hmm. dana dana dana dana mën a wàññeeku parce que euh, noonu fi mu ne problème euh, certificat d'inhumation yi. Mhm. problème boobu noonu la amee woon problème moom itam. Mhm, mhm, noonu la amee woon problème parce que nit ñi itam tàmbuñu woon nit day day faatu ci këram. ñu jël ko rek dem yóbbu. te xamuñu ne loolu itam lu compliqué la. parce que itam yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne euh, loi daf ko encadré. donc dañ ko war a déclarer. dañ ko war a euh, am certificat de décès. certificat genre de mort. ñu doog am certificat d'inhumation. ñu doog ko sañ a rob ci nañ ci gën mën a a baax ba mu gën mën a mm-hmm. a mën a yaatu yaakaar naa ne sa am na émission boo xam ne président tribunal départemental ci boppam ñëwoon na fii mm-hmm. ba ba leeral ko mm-hmm. hmm? wax ni kenn amul droit nga ñëw rek ñu denc la te amoo kayit bi ñu bi nga xam ni ñu ngi ko tudde certificat d'inhumé te loolu maire bi ci boppam nga xam ni euh, armeel yi ci dëkkam la nekk moom moo am droit signé ko bala mu ko signé nag dina am kayit boo xam ne bii day jóge ci ci médecin médecin bi wala infirmier bi ah pour wane ni diw mm-hmm. gaañoo na ci sama ci sama sama hôpital wala sama post de centre mm-hmm. ah wala mu jóge ci chef de village ba chef de village ba hmm, wax ni kii kat mm-hmm. ci sama village la dëkkoon jóge na fi tel bis ñu indi ko bu ñu ko indee mairie bi euh, dafa leen benn kayit certificat d'inhumé léegi sax pour gën a yombal euh, loolu sax parce que nit ñi yenn saa yi dañ doon sonn da ngay ñëw bàq yi da ngay ñëw bàq yi ñooy la demal maire yi léegi fexe nañ ba bàq yi ci boppam am na officier d'état civil bu ñu fa nomee boo xam ne bii boo indee sa kayit yu valable soo jógee Ndakaar wala nga jógee feneen wala nga jógee même Touba bu ñu la defalee kayit bu valable boo dikkee moom dina la mën a signal ñu denc la te doo am benn benn benn jafe-jafe jafe-jafe dootul am jafe-jafe dootul am na fa officier d' état civil délégué. bu ñu fa bu ñu fa nommé. Mm-hmm, mm-hmm. Hmm, mi ngi foofu. Mm-hmm. Hmm. tey bu doon xool nombre de naissance yi wala déclaration yi. Hmm. wala euh, xëy na euh, yi nga xamante ni moom la ñuy transcrire ci ay wàllu wàllu euh, jugement. waaw par année. waaw ñu ko doon xayma ci Touba. lu muy war a toll. daal mi ngi nekk diggante cinquante mille ak soixante mille. par année ah waaw. maanaam mais loolu nag du du du du juddu yu bees yi. juddu yu bees yi maanaam juddu yu bees yi la ak juddu yi nga xam ni jugement lañ ko lañ ko lañ ko déclaré. cinquante mille cinquante mille mais cinquante mille. cinquante mille xam nga mooy. ñaata ñaata carnet la mooy mooy mooy mille carnet. mille carnet benn année benn année mille carnet. xam nga loolu moom parce que weer wu jot dinañ am lu lu ëpp cent carnet. weer ñu ngi ëpp cent di nga am plus de cent xam nga loolu moom denc ko denc ko ci barab rek day jafe. at mu jot nga am mille. fukki at yi doon dix mille dix mille fan nga ko mën a. <laughs> ci ban ban kër kër moo tax. loolu moo indi moo moo tax dañ ne dinañu fexe ba bon te loolu quand même euh, euh, agence nationale de état civil am nañ ci ay dig yu am solo nee na dinañu fexe ba ñu am ay kër yoo xam ni état civil rek lay lay lay lay lay lay doon. day délocaliser wu ci mairie dañ koy délocaliser tabax nga xam ni centre principal lay doon wala centre secondaire. nga xam ne état civil rek lay doon. waaw ah, loolu sax de bu projet hmm. numérisation mais bu projet numérisation moom dina ko wàññi bu baax a baax a baax da koy wàññi bu baax a baax parce que warum carnet daal moom ah, problème la dafa dafa métti dafa métti mille carnet ah. mille carnet par loolu amul fenn ci Sénégal amul fenn alors nga war a ñëw di ko xool a alors euh, boo amul ay archiviste yu yu yu farlu sax liggéey bi day jafe trop heureusement que fiintu am nañ ñetti archiviste diplômé de l'EHPAD yoo xam ne ñu ngi fii mm. di ñu jàppale bu baax ci liggéey bi mais même loolu doyul même même loolu même même même même loolu doyul màggaayu dëkk bi dafa màggaayu dëkk bi dëkk bi ni muy màggee moom dafa dafa dafa moom moom foo ko takk rek wees na maanaam boo koy wax sax moom mm-hmm. yenn sax yi dañuy defee ni sax yow da ngay da ngay wax nii rek hmm? mais boo génnee ni leen cinquante man maa dem nga dem séminaire ñi leen man actuellement maa ngi numéro cinquante neuf mille actes wala maa ngi 49000 actes alors ci la ko ni ngi. nga génn ko dama am doom bu judd woon janvier. benn mois de janvier. waaw mais le 12 janvier la judd. 12 janvier ma dem di ko déclaré. waaw mu nekk numéro. waay 10000 et quelques. waay waay waay waay. 10000 et quelques. ma posé wu question ma ne déet. waay gars yi mën naa nekk de. 10000 et quelques. waay mën naa nekk naa nekk mois de janvier la judd. waay loolu moom jafe-jafe la. waaye nag initiative bi dana dana dana. waaw lii daal yaakaar yaakaar naa ni daal moom moom. waaw léegi ci tàmbali bi moom bu réglé wul mm, problème yëpp tamit. Mm-hmm. dina ko réglé ndànk-ndànk. ndax au moins nit ñi distance yi ñu doon def dina wàññi ku baax loolu dina tax ñu gën a sawar. waaye da nga naan gis koo xam ne kii day ñëw benn yoon ñaari yoon ñu ne ko alors euh, euh, sa këyit parewul rek mu jóge fa découragé ba du dellu si waat ba bala moo amati këyitu juddu ab jugement jugement lay doon daal. Hmm? léegi mu des nag. loolu. kañ la war a nekk nag euh, en vigueur kañ la war a tàmbali loolu nag ñu ngi am yaakaar ci ni du du sori mhm. en tout am nañ yaakaar ci ni mois de janvier bi mhm. bon waaye nag ñun quand même ay fonctionnaire la ñun mhm. loolu dañuy bàyyi euh, maire ci boppam moom mooy am primeur bi pour déclarer ko maanaam moom mooy mën wax ni bis sangam parce que moom mooy préparé mais daal moom lépp mat na lii des daal mooy euh, maanaam ñu affecté agent yi fi war a ñëw déjà officier d'état civil tàmbali na leen a nommé mhm. am na ñu ngi ci xam ba pare mhm. agent yi moo ci des bon li ci des nag moom daaj yeeg yooyu nag moom kilifa gu mag moom moo koy. neel maire daal population Touba ñi ngi ko ñi ngi koy soññ. bu mm-hmm. baral jéego yi lii moom yàkkamti nañ ko lool. Mm-hmm. Ah, ndax euh, coono. Mm-hmm. tum kayit. Euh, mën a man a mën a mën a wàññeeku. sëñ Bamba waxtaan wi neex na waxtu waa ngi dem. waxtaan wi neex na lool euh, neex na lool macha allah. te itam li itam lu am solo la. fexe ba li ñuy liggéey. ak jafe-jafe yi ci am ñu koy partagé ak population bi. ñu koy xam. initiative yi ñuy am itam. ñu koy communiquer ba population bi di xam ne léegi lii nii la demee mhm. yombal nañ ko ci nii ci ak ak ci nii mhm. yaakaar naa lii moom mhm. bu amee population bi yëpp danañ applaudissé wu danañ tàccu ne vraiment euh, am na jéego yu am solo yoo xamante nii mairie Touba am na ko waxtu bi mu ngi kii xam ne ñu jox la nga sa kàddu yu mujj yi nga xam ne moom ngay tàggoo rek ah jërëjëf ñu ngi lay delluwaat di la di la sant ci dalal bi comme ni mu ko tàmbalee di wax fii moom ay boromi xam-xam rek ak ay communicants yu am solo ñoo fi jaar. macha moo tax euh, bi ñu ma nee dañ la dalal sax euh, amoon naa ci tuuti tiitaange xol <laughs> waaye yaakaar naa ni daal góorgóorlu nañ ba li ñu wax nit ñi mën nañ ko mën nañ ko dégg. ñu ngi ñaan yàlla daal projet bii moom ñu commencé ko tàmbali bala moo yàgg lool. Mm-hmm, ndax euh, yitte askan bi la. Mm-hmm. yitte askan bi incha allah ñu ngi lay gërëm di la sant. di dellu di ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha. yàlla bàyyi ko fii te yàlla wéral ko te yàlla boole ñu defal ñu tawfeex ba ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ koy jàppale ci liggéey boobu allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam jërëjëf Serigne Bamba Fall Serigne Bamba Fall. Mm-hmm. nekk nekkoon secretaire général euh, bu commune bi waaye itam nekk adjoint euh, ancien sous-préfet waaye itam doon ki nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu aju ci état civil ci maire commune bu Touba Mosquée. Euh, gis ngeen waxtaan wi nga xam ne tey moom la ñu indi woon muy jéego yu bees yi nga xam ne maire bi am na ko ci ay centre avancé yoo xam ne war na mën a dem ci quartier yi mën a jege population bi mën a régler seen problème mu kayitu juddu kayitu mariage kayitu euh, ñi nga xam ne ñoo fi bàyyi ko euh, nga xam ne jafe-jafe yooyu nga xam ne ku nekk teg na ci bëtam ci maire Touba waaye nag wax na li nga xamante ni moo ko waral muy loo xam ne ñun ñëpp bett nañu ci ne ndekete lu mat ay cinquante mille te ñooñu xam nañ ne population Touba boo xoolee euh, trente pour cent yi sax du ñoom ñooy déclaré am bari na ñoo xamante ni de euh, déclaré wuñ seen i naissance muy liggéey boo xamante ni liggéey bu am solo la boo xamante ni euh, ñi ngi yaakaar ñu baral jéego yi ngir man koo gaaw a def ba nga xam ne population bi dañ ci mën a gis seen bopp mu wàññi seen i jafe-jafe ñu ngi koy gërëm bu baax a baax macha allah. pré ni mu ko présenté leer na leeral gi itam am na solo wax na itam mbooleem euh, centre yooyu dëkk yi ñu ëmb nga xam ne yooyu la ñuy saña euh, euh, ku ku dëkk ca yooye ci ngay saña dem ci centre boobu loolu itam leeral na ko kon mel na ne ndaje mi amoon na solo ñi ngi jaajëfal mbooleem ñi nga xamante ni doon nañu topp ci MKTV fii ci grande mosquée de Touba lii rek la ndaje mi dara waralu ko lu dul dalal kàngam yi nga xamante ni dañoo yor ay banqaas yu mag ci dëkk bi mu laaj ñu waxtaan ci dem ci population bi ñu xam doxalin ba loolu rek moo ko waraloon kon ñi ngi leen di jaajëfal bu baax baax di sant bu baax sëriñ Abdul Xaadir Bousso mi nga xamante ni moo nekkoon ci euh, coordination wu émission bi waaye tam di gërëm bu baax a baax sëñ Bàcci sëriñ Fàllu Sëy ñi nga xamante ni ñoom la ñu àndoon loon ci caméraman be caméraman yeeg technique bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërë ngeen jëf وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفيه عن نكدي